li ñu fi boole mooy marche pacifique boo xamante ni nekkul rek sunu localité bi mais c'est partout dans le Sénégal marche nationale la li ñu fi andi nekk mooy seetlu nañ ne depuis école ubbi ba léegi ba école ubbi ba léegi mënuñu jàng normal da ngay ñëw jàng si lundi ñu ne la suba mardi débrayage mercredi total léegi semaine prochaine ñu lance waat beneen plan d'action beneen bu ci topp beneen bi ci topp bu ñu jëlee localu localu Mbacké Touba Diourbel ñun fii élèves yi lu ñuy dund dafa métti premièrement transport ndax gis nañ léegi fu waay wàcc cent franc beneen bi ci topp ñun suñu gouvernement bi dañoo yàq système bi ba nga xam ne da ngay jàng am diplôme ba pare mais doo am niveau léegi lu ñu bëgg continuer di ñu coloniser ah continuer di ñu manipuler nga xamante ni dañuy xiifal alors que seen doom mu ngi à l'extérieur li ñu bëgg mooy jàng bii ñu ngi ñaan yàlla réussir ko buñ ko réussir dinañ lancer plan B te plan B bu dikkee mooy gën a métti yaakaar naa na ngi leen di ñaan nag ñu président na saafara lii. parce que dañoo gis ne bi école tijjee ba tey defuñu devoir wala devoir yi ñu jot a def mënuñu cee jot en plus parfois da ngay ñëw ba école ñu ne la defuñu cours maanaam programme bi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk classe de terminale xaajala guñ sax et que trois mois moo ñu dese donc jot na ñun ñu xeex parce que dañoo bëgg a jàng normalement les cours ne se font plus correctement da ngay ñëw ba egg am na ci yoo xamante ni yu ci bari yoo xamante ne ni découragé wu lañ parce que lan da ngay paas da paas ñëw ba fii ñu naan la tey defuñu cours wala dañoo am débrayage nangam ak nangam on banalise pas leur acte parce que ñoom ñoo ngi seen droit nag jot na ñun élèves yi lan moo suñ pour ñu xeex pour jot suñu àq loolu moo nekkoon suñ partout quand on cherche avec l'espoir de trouver mënuñoo dem si geer ba pare ñu ne buñ demee défaite lañ fay jëlee donc ñun dañuy am yaakaar def suñ xel ne incha allahu rabbi buñ defee mars bii nii suñ jàngoro yi ñuy xeex dina saafara avant tout loolu lañ def suñ bopp te ñoo ngi ñaan benn marche du fi amaat ñooñu sàkku ci nguur gi ngir yàlla mu dugal loxoom parce que benn réew mënta avancer sans développement donc pour ñu développer faaw ñu développer éducation bi donc ngir yàlla gouvernement bi na dellu na dooleelaat jàngalekat yi parce que mënuñoo dem fenn sans bonne éducation fas yéene nañoo yokk suñu loxo lii nii première kese la incha allah rabi buñ gisaatul yeneen yoo xamante ni am nañ saafara